ngeen nekkoon ñëw sama kër. wax dëgg yàlla dama ciy kontaan. kontaan naa ci trop trop. yegg si ndar maa ngi rek ñëpp far. waaw maa moo kaa ñu ma dama leen rek foo foo foo jëm. ndar salaamaaleykum ndar bisimilaay ndar rahmaani ndar rahim ndar man kaaw ñëw naa ndar def naa ndar jéggi leen ndar Ki dugal ma fi ku kana ku dugala ma beneen ku. waaw may sant ku ki ba. waaw benn benn ki day nokkal sama xol. yow looy jote ak sama jabar. waaw lan la may fanalee. may ma sama baat nga yónnee ma ko. yónnee ma ko message wala nga yónnee ma wala nga istati ko ñëpp gis na Fatou Kiné may yow. waa kii du Mansour Ndiaye déglul. kii Doudou Mbaye la ah Doudou Mbaye du Dora. yaa dàqu dul fi yow. ah bi. agressé naa la ba jël kóolu joxaat la ko. lii sa biir jox ma ma xam ne teg rek. gone gu ndaw <laughs> bul ma tonton. mais tonton. ah <laughs> ñàkku laa bëgg nga wóol ma lekho sile tidi gumuni mhm. ganondari ganiyomunamunye eh?